60 jours 60 vidéos jour 51 sama gars yi ñu ëpp si yéen xamuñu une vidéo li ci gën a yomb moom tournage mais partie bi le avant tournage c'est très compliqué li ci gën mettre, am idée de vidéo comme man sama idée de vidéo warul nekk truc et astuce dafa war une vidéo xam te ne day ñëw leeralal leen loo xam am na sa fiche technique aussi pour que yow booy jënd nga mën a sa mais surtout mu nekk vidéo pour ramteni ni dafa pour mettre la à jour technologiquement parlant par rapport au. fin de toll wala sa gëm-gëm yi nga xamante ni amoon nga technologie alors que instant yi loolu amatul et aussi warul doon lo xamanteni pour jaay la après bu ma trouver idée de vidéo bi ensuite légui il faut que ñu jall si nan lañ koy expliquer pour ñepp mën see jot parce que dama yoré trois publics ñoo xamanteni ni ñoo ëpp xam-xam ci limay wax amna na ñoo xamante ni lu may wax dañ koy jang manam lepp lu may wax dafa bees ci ñom amna ñoo dañ may suivre juste parce que ni may défé sama vidéo yi daf leen neex légui nak faut mu wut solution pour expliquer trois types de personnes yooyu yëpp en même temps mu wut ay intro si kaw intro manam hook comme par exemple bi may def vidéo aussi fibre ak ADSL dama ni est-ce que xam ngeen ni orange ndax ñu le dëkk et ça phrase bobu nonou dafa nek lo xam te ni intro ou intro moy mooy li tax nga taxaw si biir vidéo bi comme buma waxé comme di ngeen gis MacBook da leen di jaay yefi mag té mag du faux té bul faté abonné wu avant bul faté abonné wu lool non ma fay wax des fois lool day nek conclusion ou conclusion vidéo yi ni sen base moy juste essayer expliquer nit ñi ñu commencer comprendre technologie parce que technologie dafa raw ñu bëri si Sénégal et aussi Sénégal dafa manquer contenu technologie boo xamante du pour jaay ñaar étape yoy c'est important pour mu mën len délivrer contenu de qualité après les utopies, c'est la routine Madame sol tubéy bi beige bi filmer monter après terminer vidéo bi ak abonné